asalaamaaleykum mbokk yi alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV mbokk yi maa ngi fii ci GW Cheikh Seydil Hadji Malick Sy euh, mbokk yi gis ngeen ko fii nga xamante ni fii la lépp commencé tabaarakallaahu ndax ba may am téléphone bu ndaw fii laa ñëwoon wax ko ko moom borom parasol bi nga xamante ni du ragal tàngaay junj la tabaarakallaahu ci barkeem ci la ma sëriñ Abdoul Aziz Sy Al Amine ñaanale woon ni ma yàlla yàlla def ba na bépp dégg la tey may dem ba taalibe Seydil Hadji malik bu mag bu ñuy wax Abdou Aziz Ndiaye mu bàyyi Alé Ndiaye woo ma ma ñëw mu jëndal ma caméra professionnelle bu ñuy wax 4K mbokk yi man ni du ci filmer kenn ku dul waa kër Cheikh Seydil Hadji Malick laa ci njëkk a moo tax ma ñëw tey fii ci réew du Cheikh Seydil Hadji Malick moom laa bëgg caméra bi njëkk ko filmer mbokk yi di wax ni képp koo xamante ni taalibe Seexul Hadji Malick nga maa ngi bëgg nga ñaanalal ma Abdou Aziz Ndiaye ci participation bi mu def ci Ndox TV te bi mu ko defee ba pare daf ni ma maa ngi ko def addiya Cheikh Seydil Hadji Malick si bëgg lépp lu Seydil Hadji amati nanga ko wane ba nit ñi xam Seydil Hadji Malick li mu baax la lépp ci àddina bi mbokk yi looloo waral tey ma ñëw fii ci ki nga xamante ni borom tëraay bu jekk bi nga xamante nii mooy borom parasol bi nga xamante nii du ragal tàngaay junj la ngir démarrer fii li nga xam mooy caméra bi ma Abdou Aziz Ndiaye jëndal su ma fi jugee nag damay dem ci doomam ju tedd jee ki nga xamante ni mooy borom bonekaar bi Cheikh Seydi Aboubacar Sy su ma fa jugee ci turandoo Abdoul Aziz Ndiaye nga xamante nii bi may commencé Mame Ndokh TV moom laa ko waxoon mu ñaanal ma ci kon mbokk yi ni ñuy def mooy da ngeen may xaar tuuti rek ñu ànd dem ci Cheikh Seydi Aboubacar Sy bu ñu fa jugee ñu dem ci ki nga xamante mooy Serigne Abdoul ngeen jëf jërë ngeen jëf mbokk yi comme ni ma ko waxoon sànq bi may nekk ci GIE Cheikh Seydil Hadj Malick Sy Alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV mbokk yi dama waxoon ni bi may commencé benn micro bu ndaw laa yor daan ci waxtaane dem ci Cheikh Seydil Hadj Malick Sy mu ñaan ci ma ñëw ci Serigne Abdoul Aziz Sy Al mi ngi jooytu noppeegunu mu wax ma ne ma tàllalal sa ay loxo ma ñaanal la addina xam la addinaa ngi may xam waaye nag dafa am taalibe Seydil Hadj Malick turandoo Serigne Abdoul Aziz Al Amine di Abdoul Aziz Ndiaye bu baay aale woo ma Ndakaaru mu ñëw mu ne ma ci barki Cheikh Seydil Hadji Malick si barki Cheikh Seydi Aboubacar si barki Serigne Abdoul Aziz sama turandoo mu ñëw Ndakaaru mu yóbbu ma marché jëndal ma matériel yu 1 million 500 mille fay ko ci sama kanam ni ma damaa bëgg lu Seydil Hadji Malick amati ci lu baax na nga ko wane mbokk yi ci Seydil Hadji Malick laa jugee ñëw fii ci borom bone carré bi nga xamante ni du ko jekkal du ko sengal borom sàkkara yàlla bi nga xamante ni lu mu wax yàlla def ko mbokk yi mu ñëw fii ngir wan ko ni ko kat Abdoul Aziz Ndiaye sa sët ba turandoo sa doom ji Serigne Abdoul Aziz Amine def na teraanga boobu ci biir Ndox TV caméra bi nag dama ne du ma ci njëkk a filmé kenn ku dul Seydi Hadj Malick ak njabootam ci Seydi Hadj Malick laa jugee maa ngi fii ci Cheikh Seydi Aboubacar si turandoo Serigne Abdoul ngi lay ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal sa fan ci barke yonent bi loo yóti yàlla nga ci jot kon mbokk yi ngeen xaar nu tuuti ñu dem ci xabru ki nga xamante ni mooy Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine mi niy jooytu noppeegunu mbokk yi gis ngeen ma maa ngi fii ci xabru Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine bi leen waxoon sànq di turandoo sëriñ Abdoul Aziz Ndiaye bi nga xamante ni tabarakallahu mooy turandoo sëriñ Abdoul Aziz di Aziz Ala Ndiaye mbokk yi li tax ma ñëw fii nag mooy damay seedeel sëriñ bi rek eh, ndax damay delloo buy ca mbooy mbooy moom mii sëriñ Abdoul Aziz Al Amine moom ma ñaanaloon man Alxaaji Mbeng Diop ni ma Ndox TV ñëpp dinañ ko dégg kon su ma demee tey ba turandoom bi def ci li mu ci def jëndal ma caméra professionnelle damay delsi ci moom xamal ko ni ko kat ñaan ga ma ñaanaloon yàlla nga koy taw di ñaan ci barke moom Serigne Abdoul Aziz Salamine yàlla yàlla yokk leeram yàlla yokk turandoom bi ma defal teraanga bii ba ñëpp di ko dégg ci àddina bi yàlla boole ko ci milliardaires yi Seydil Hadji yi ngir li mu def ndax kat bi ma ko defee daf ni ma lii maa ci wuutu sama turandoo wuuti sëriñ Babacar si Mouhamadul Mansour xarit général de Tidiane waaye wuuti samaam Seydil Hadji Malick si bëgg lépp lu Seydil Hadji Malick def na nga ko génne kon mbokk yi lii laa doon ñëw fii tey pour seede ko ci kanamu sëriñ bi di ñaanal Abdou Aziz Ndiaye li nga ma defal yàlla na la ko yàlla funal ci barki Seydil Hadji Malick tax nga def ko di wax ni mbokk yi ndox ci alalu xadara bi la tabarakallahu alalu jullit yi la dañ koy def ngir yàlla ak bëgg lépp lu Seydil Hadji Malick am ñu génne ko tabaarakallaahu bëgg nañu def ay voyage dem Njaarnde bëgg nañu def ay voyage tabaarakallaahu dem Ndar bëgg nañ def tabaarakallaahu dem Gaaya fépp foo xamante ni Seydil Hadj Malick jaar na fa rek alxaaj Mbeng Jóob ak Maam Ndox bëgg nañoo ànd tabaarakallaahu dem def fa ay li nga xamante ni mooy ay ay ay ay ay waxtaan ci Seydil Hadj Malick ci loolu la ñu indi ñu ngi di baax di leen gërëm jërë ngeen jëf